أهلا آه، am bikum ronqañ yu tuuru di wala ngaan seede yu rafet jotaay bu daw yaram kaddu yu daw yaram moo xam ni ki démb ba ñu yëkkati niwu birinoo jaataa ba te moo yéen kaay ñi ko xamal enquête yéen kaay dëggal ko ne askanu Sénégal tàggatoo nañu ak birinoo jaataa ci ay ronqañ nation bi ñoo ko delloo njukkal ca bunt pale ba lu ëpp ñeen fukki at def na ko fa tey jii ma noppalu ca digoo yu beleer monseigneur Benjamin Ndiaye ci enquête enquête yéen a kaay ne Bruno Diatta ab don la woon yalla ko mayoon Sénégal moo taxit ba mu ko soxlaa jël na ko te kenn mënu ci dara li des kay mooy ñaanal ko direct info ne démb jotaay bu daw yaram nday sànn askan wi yëpp moo xam ni ngànk nguur gi ku jéggi kilifa diine yi kilifa aada yi xamut ku des ñëpp dem ngir tàggatoo ak moom laas yéen a kaay ne photo Bruno Diatta ya fañ ko doon jaay bu baax mi ñi di ko jënd nday sànn réew mi yéen a kaay na ko sargal gu mujj moom lañ ko defal démb njiit réew mi Macky Sall nag seede yu tooy xol moom la wax ca kanam askan wa jëmale ko ci Bruno Diatta ah! I'll njiit réew Macky Sall nee na birinoo fa doon fanaan sax ci otom bi lépp ngir liggéeyam jàmbaar la ku xarañoon la ku fonkoon lu muy def ku ñàkk caaxaan royuwaay la woon wàllu protocole moom xamut ci woon morom zoom yéen a na ko aaj birinoo loolu mooy tàggatoo ba faw àllaaxira rek le quotidien yéen a kaay moom nee na ko aaj bés ni ki tey saal ba ñuy xamalee conseil des ministres ca ba birinoo jaata lañ ko tuddee ah na ko wax moom mooy éternam maanaam dem nga ba faw waaye da nga des ci xol yi ba faw ndax sa liggéey njiitire Macky Sall nekki ñàkk nekkutoon waxkat waaye jëf kat la woon moo xam man pale bi askan wi réew mi ñàkk nañ nit ku mag ku doon liggéey réewam ci anam gu mucc ayib projet bi mu amoon nag muy tabax ab académie bu ñuy jàngale wàllu protocole njiitire Macky Sall nee na état bi dana ko wéyal tabax ko ngir wasaare fa xam-xamu birinoo loolu la bëggoon ci la solo yéene kaay ko birinoo maa nekkoon ci yow les éco na njiitire Macky doon jéem a wax naan moom moo fal Bruno Diatta rang wu ministre aa ah, yow seet Macky fa joxe ay firnde yu leer ci atum 2012 décret bi nga xam ne moom la Macky jëloon signé ko ngir birinoo yor raawu ministre moom la wane kon leer nana na Macky ko faloon keneen kuy leeral li tax démb demut fekkee bésu birinoo jaata ba du kenn ku may Ousmane Sonko donte joxe nañ ko bataaxala bu woo maanaam invitation ci témoins yi rek kaay ma ngay leeral lu tax demut ñeneen ñu demut ca bésu birinoo ba démb mooy Ablaye Wade ak Abdou Diouf ay ndaw lañ yónnee nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na Pape Diop bokk gis-gis samp na ndëndëm ngir laaj réewum Sénégal ba pare na dékku na njiit Sall l'évidence yéen a kaay ñu ko xamal le quotidien yéen a kaay ne Pape Diop xam nga lu wax nee na moom buñ ko falee mu nekk président jiite réew mi benn mandat dong lay am maanaam juróomi at rek mu liggéey Sénégal ba mu sott mu dem bàyyi keneen ñëw 24 heures yéen a kaay mel ni ku naan Pape Diop de lii mu wax moom rek ko mës a wax benn mandat juróomi at te nee na démocratie Sénégal dana ko gën a ñoŋal ci àdduna bi ñu ne déete waay kër yi contrôlé ñu sàcc alal ju lewu tëj doxalinu état bi nee ñooñu moom bu faloo fa ñuy moom seen bopp maanaam dootu nekk ci kilifteefu njiiti réew mi turbine yéen a kaay ne Pape wax na lay def kenn mësut koo dégg wàññi doole njiiti réew mi magistrat yi moom seen bopp assemblée nationale lépp lay soppi nee na te mooy yéen a kaay ne Pape Diop yemut fa nee na njiiti réew Macky Sall wote yi di ñëw 2019 34 pour cent lay xam la xam ca biir meeru taxaw Sénégal ya a tànn ngir yaaw seetal source ay yéen a kaay nee na seen pëccoxoo googu nag moo arrangé waa benn bokk yaakaar loolu gën si ñoom mën nañ faa doxee jël maire bi ci seen loxo Banda Diop nag ma ngay leeral yëf ya Bamba Fall dugg na gaañu ba taxaw man ma taxaw ci l'évidence yéen a kaay fekk fa ñi xamante ne dañuy attaqué Moustapha Niass di ay responsable APR ca Kaolack ndangaan comme nag tontu du forox farandoori Moustapha Niass ya waa AFP yu Kaolack tontu nañu waa APR yi aayaw seet Babacar Chadiya Soxna responsable AFP nee na ñaawlu ñi nga xam ne dañuy tuumaal Moustapha Niass doxalin bu ñaaw par parloog lu ma mënta wax te dara waralut ko lu mooy li Macky Sall jiital Moustapha Niass ci wàllu parrainage bi ca diwaan ba yëpp délégué régional ba nee moom métti benn responsable APR boo xamante ne fumiste du dara du tus ma ngay sàkku ci Macky nag mu teg ko ay daan ndax mu xam boppam seen lancement parrainage bi ñu fa na Fatou Bruno Diatta moo tax waaye du dara te danañ ko demee seet ci témoin yéen a kii fa maa bëgg a liquider waaye du sotti man sama liggéey xam naa ko xana fii fi ñor bañ koy macc di dal ci sama kaw di xaxar xaxare yuuxu laas yéen a kaay na abc kay fa tàkkale dugg njiiti jëwriñ yi ko am njiiti jëwriñ su demee ba mënta ànd ak dal xam nga ne loolu baaxul tàggat yaram Kalidou Koulibaly mooy vice capitaine bu Naples record yéen a kaay na kat ma nga yokk keneen ku yokk ci football mooy Hazard bu a a a bëreeg ñaar fukki fan ci weeru janvier 2019 les éco yéen a kaay ñu ko xamal li mu xamal moom Lamine Golo ci sunu lamb yéen a mooy na Balla Gaye mën naa nekkaat roi des arènes l'observateur moom dikkaat ak ñun ci histoire dëggantil man Njaay bu Maguette Njaay mooy ndaw si jëkkëram ren di rey gu ñaaw ca Espagne diggante ak taaliba sëñ Touba bi ku farlu woon ci màggal ak Touba gi dundam ak jaar-jaaram ak li mujj waxtaan ak ay waajuram l'observateur andil nañu ko li mu ñu andil moom l'évidence yéen a kaay mooy ne militaire bi dóoroon sénégalais bi Omar Wat ba nañ ko tëj nañ ko ca kasoog rëbës ga allah Dakar Times ne hee def leen ndànk de bu leen wax na très bien loolu baax na tubaab bu jàddee yoon Sénégal fañ ko war a tëj kaso Dakar Times nee na xaar leen bañ gis tubaab ba tëdd biir rëbës maanaam xibaar bii mën naa am dara du ci dëgg ndax accord déggoo diggante réewum Sénégal ak France la wax yéene kaay bi andi na ko kon daal militaire France ba fekk gisuñ ko biir rëbës mu tëdd ca kaso ga bu ko kenn gëm mu tëdd